alhamdulillahi ala ihsaani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinaani wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu taadiman li shaani wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu daaci ila ridwaani fa salawaatu llahi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa ixwaani amma baadu mbokk jullit yi nañu sant yàlla bu baax ci xéewal yi nga xam ne yàlla defal nañu ko rawatina xéewalu diine xéewalu njub xéewalu gëm yàlla xéewalu nangul yàlla nangu ko nekkal jàmm di ko jaamu subhanahu wa taala yàlla defaluñu xéewal bu gën a rëy boobu moo tax ñi koy ñaan saa bu ñu jullee daan ko ihdina sirat al mustaqim sirat alladina anamta alayhim anamta alayhim mooy yoon wi nga xam ni moom lañ koy ñaan ngir mu teg ñu ci yoon woowu képp ku fa yàlla teg rek baaxee na la defal na la xéewal gu rëy rëy moo tax bi muy wax daf ne mooy yoonu ñi nga xam ne def nga ci ñoom sa xéewal def nga ci sa ñoom sa xéewal mooy xéewalu njub xéewal googu yàlla defal ñu ko ñu nekk ay jullit di góorgóorlu ci suñu diine di ko di xeeñtu yoon woowu noonu di ci def suñu kéemtalaay kàttan loolu dañ ciy sant yàlla fu ñu toll mu bokk ci xéewal ñu ci yàlla defal ci loolu mooy yiw yi nga xam ne yàlla daf ñu koy jox di ñu ko indil jamono ju nekk mu nekk ne bokk na ci jamono yooyu fan yi nga xam ne ñu ngi koy dund muy fukki fan yi nga xam ne mooy fukki fan yi tabaski di fukki fan yi dil xijja fukki fan yenn ci borom xam dañ wax ne mooy fan yi gën ci àdduna amul fan yu gën a màgg fan yu gën a tedd fa yàlla fukki fan yi ñuy dund nii muy fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski di chahru dil xijja wax nañ ne moom la suñu borom di wax ci wax ji mu wax ne wal fajri wa layaalin ashr bi mu waatee ci alfajar waxtu fajar muy waxtu njël da caa teg waat ci fukki guddi fukki guddi yooyu lu bari ci borom xam-xam njëkk tàmbale ko ci saxaaba yi dañu doon wax ne mooy fan yi nga xam ne mooy fukki fan yi njëkk ci tabaski mooy fukki fan yi nga xamante ni mooy weeru aj fukki fan yooyu la ndax yonente bi alayhi salatu nee na nit deful jëf bu gën a màgg jëf bu mu def ci fukki fan yi nit deful jëf bu gën a màgg ak jamono ju ko mën a def moo xam ci weeru koor la moo xam fu mën a doon la lu jëf bi màgg màgg màgg mënta tolloog dayoo ak ngëneel jëf bu mu def ci fukki fan yii ñu ne ko ba ci jihaat ci yoonu yàlla nit ki génn di jihaat jëfam boobu li muy màgg màgg tolloowul ak jëf bu def ci fukki fan yi mu ne lu dul jihaat ci yoonu yàlla boo xam nit ki da caa génn jël alalam ak bakkanam teg ko ci yoonu yàlla jihaatee ko ba dara delluwaatul ñàkk na bakkanam ñàkk na alalam ci yoonu yàlla xanaa ku mel noonu jëf ju toll noonu xëy na mën naa tolloog jëf ñu def ci fukki fan yi moo tax mu nekk fan yi ngëneel yoo xam nit ki da cee war a profité góorgóorlu ci def lu baax góor góorgóorlu ci jaamu yàlla ci bunt ngëneel yi nga xamante ni nit ki mën na cee góorgóorlu soobu ci ba yàlla bu ko nangulee jëfam yooyu mu nekk lu màgg loolu fa yàlla subhanahu wa taala mu bokk ci li nga xam ne yonente bi alayhi salaam daan na si ñaax jullit ñi mooy ñuy woor yi donte bu ñu waxee fukki fan yi kenn du woor bi ndax bisu kenn du ko woor dafa araam ci waaye nga woor fukki juróom-ñeenti fan yi loo ci mën a woor rawatina juróom-ñeenteelu fan bi nga xam ne moom lay di taxaw arafa juróom-ñeenteelu fan bi nit ñi di taxaw arafa sunna la nga woor ko ndax yonente bi alayhi salaam neen dafay far bàkkaaru ñaari at at bi weesu ak at bi nga xam ne moom la ñuy dugg loolu ngëneel bu rëy rëy la ci woor benn fan arafa mooy bis bi nit ñi di taxaw arafa amul amul ñaari arafa li ñuy wax naan dëkk bu nekk ak arafaam benn arafa moo am bu jullit ñëpp dajaloo ndax li nga xamante ni mooy aj dafa lëkkaloo ak li ñuy def ci weer wi weer bi weeru aj la li ñuy def ci ay jaamu yàlla yépp yàlla da ko lëkkale ak aj gi moo tax mënuñu koo jël di dissocié ko bëgg koo def ñaari mbir ne waa aj gi ñoom ña ngay aj ak seen arafa waaye ñun ak suñu arafa jamono ji nit ki taxaw arafa naan labbayk allahuma labbayk jamono jooju lañ lañ taamu ci jullit bi mu woor jullit ñi la seen mbir doy waar doy waar ba mënatuñoo ànd ci dara suñu diine ji nga xam ne yàlla baaxee nañu ko nga xam ne moom dafa dépassé ay frontières dépassé ay xeet ak ay askan diine yàlla ji xamul askan xamul xeet xamul sénégalais xamul saoudien xamul égyptien xamul kenn jullit rek la xam jullit ñu waroon nekk benn communauté di defandoo suñu lépp di jaamoondoo suñu borom bu suñuy aj ujjaaj di jóge fii di aji ji bu ñuy ñiy jóge Indonésie jóge seen dëkk di aji ji ñuy jóge Madagascar jóge seen dëkk di aji ji ñoom ñëpp ci benn aj la dem benn borom moo leen foofu benn borom la ñuy wuyu ji loolu bu fekkonte ni comprendre woon nañ jaamu yàlla bu mel noonu waroon na ñëpp mën a bokkandoo di ko def waaye kenn ku nekk fi mu nekk bëgg nga sa bopp kenn ku nekk bëgg nga ber sa fu bopp pour wane ne man la diw man ak samay nit lii man su ma deful lii kenn du def lii wallahi loolu yëpp dara amu ci solo li am solo mooy lii ñuy def ñu xam ne yàlla moo ñu ko sant ñu def ko te yàlla tax defee ko ni ñu ko yàlla santee ñaan yàlla yàlla nangu ko ndax mbir mi du ay mbiru nit mbir mi mbiru yàlla la diine ji yàlla moo ko moom liñ ci def yëpp yàlla lañ koy defal lu ci nit def sa bopp nga ko defal moo tax bañ a bàyyi sa moroomu doomu adama jël la en otage dox sa digganteeg sa borom ba yow li la yàlla sant da nga koy def en fonction moom ci ay désiram moom ni mu ko bëggee nga koy defee doo xool yow ni ko yàlla bëggee nga defee ko noonu mais loolu boo taxawee ci kanamu yàlla lan nga koy wax nit ne yow boo xamante ni yow warula la sax ndax moo la gën fa yàlla dara wóoru la ci mais jox nga ko cër ci dina yàlla ji ba loo ci def moom moo lay conditionné ci ni nga koy defee léeg-léeg sax nga gis koo xam ne au fond de lui xam na ne lii waru ko woon nii mais rëy na ci moom mu uteeg ko diw wax léegi yàlla nag yàlla moom rëyul ci yow nga wuteeg moom yàlla lim la sant wala yonent bi ni mu daan def ak lim daan jàngale rëyul ci yow nga wuteeg loolu ñi ngi ci problème bu rëy rëy nañ xam ne ci aaxiru zaman lañu nekk ci mujjantalu jamono lañ nekk àdduna yàqu na nit ñi lu bari ci dina yàlla ji dugal nañ ci seen loxo dugal ci seen i bëgg-bëgg ba soppi ci lu baree bari la fi nekkoon lu ci bari soppeeku na nañu xool li nga xamante ni moom lañ yàlla sant ñu xool li yonent bi jàngale alayhi salatu wasalam ñu tënku ci loolu loolu rek moo ñuy sauvé yowmal qiyama leneen lu dul loolu ci considération yi ñu fiy wax yépp ci àdduna amaluñu njariñ ëllëg lu dul sax daf ñu indil ay problème jaamu yàlla bu màgg ci lañ jëm jullit ñu jóge dem di aji ji yàlla baaxee ñu ñu am néegu yàlla bu màgg boo xamante ni yàlla moom moo ko aaral boppam protéger ko ak li àdduna bi yëngatu yëngatu yépp yàlla aar ko jullit bu fa dem am sentiment de sécurité boo xam ne yaa ngi ko fay yëg ñu dem fa di fa jaamu yàlla di fa def ay jaamu yàlla yu mag muy aj gi nga xam ne ñu ngi ko fay def jullit ñëpp bokk di ko defandoo ci weer wi ñun ñi fa demul tamit teewee jiwuñ ko yàlla yoonalal nañu tamit ay jaamu yàlla mooy li nga xam ne nañ ko def ci fukkeelu fan bi muy bisu tabaski bi ci rey ñu fàggu ay gàtt ànd ak ñoom sax ci ne bu ñu fas yéenee rey rek ci fukki fan yi bu ñu dagg suñu karaw bu ñu dagg suñu we loolu noonu lu ñu sàkku la ci nit ki mu def ko am na wute bu ci am ci madahib bi ci ñenn ñi gis ne dara newu ca muy bi imam abi xanifa ñeneen gis ne dañ koo tere boo tere boo xamante ne dafay àgg ci xaraam waaye li gën a jege mooy lu ñu sib la lu gënul la bu ko nit ki defoon itam du tax rey gëmi rey nekk lu lu lu amul te loolu lu diggu doomu la lu ñu mën a nangu la loolu ko nit ki nga xamante ne mooy rey mu bàyyi ci xel bu ko yàlla mayee mu am lu mën a fàggu mu fàggu ci yi nga xamante ne moom tuddee bahimatul an'am bahimatul an'am mooy ñent yi nga xam mooy gëléem nag xar ak bëy wax léeg-léeg day faral di ñëw ci ñett ñeent yooyu ban moo gën allahu alam ban moo gënal yàlla waaye li ci mën a am mooy ñeent yooyu la ñu sant bu dee gëléem juróom-ñaari nit ñoo koy bokk nag juróom-ñaari nit ñoo koy bokk xar benn nit moo koy tabaski moom njabootam ci loolu la ñenn waxee ne kon lu juróom-ñaari nit di bokk moo gën a màgg lu benn nit di def waaye yeneen borom xam-xam nañ ko xoolee ci beneen côté ñu ne yonente bi alayhi salaam li mu daan tabaskee mooy xar kon loolu muy tekki mooy moo gën yonente yàlla ibrahim bi ko yàlla digalee mu rey doomam bi nga xam ne mooy ismail ngir tabaskee ko bi mu demee bay bëgg a jëfe ndigal la yàlla da koo indil xar ne ko rey te nga bàyyi sa doom te yàlla buy tànnal ab yonentam lu baax la koy tànnal li gën la koy tànnal ci la yenn borom xam-xam waxee na kon li muy tekki mooy xar ci wàllu tabaski moom moo gën tàmmu xar moo xamante ni xar bu mat la bu mucc ci bu mucc la ci ay ayib matum xar mooy mu am at bu fekkee nit ki war na xar mu am at ba sonn amu ko xar bi bu tegee 6 mois bu 6 mois yi tegee rek mën na koo tabaskee mais à condition que mu bañ a am bu am at ba pare mu xool tamit li ci mën a nekk ci ay sikk sikk yi ci gën a fës mooy yi ci yonent bi alayhi salaam tudd ci xadiisul bara ibn azib mooy mu bañ a soox soox boo xam ne soox bu fës la soox bu metti boo xamante ni buy dox da koy yeexal mu bañ a am pat boo xam ne bët benn bët bi dafa yàqu complètement ba boo ko xoolee xam ne benn bët bi yàqu na loolu bañ cee nekk bu ñu waxee pat li muy tekki mooy warul gumba tamit bu ñuy wax bu mu bu mu làggi ci benn tànk li muy tekki mooy yeneen ñaari tànk wala ñetti tànk yi tamit warul làggi naka noonu tamit warul màgget màgget goo xam ne tax na mu dem ba woo koŋ ba ràmm ba ràgg warul tamit feebar feebar boo xam ne tëdd na ba daanaka fi mu tëdd mënatu fee jóg xar yooyu benn ci yooyu mën a tabaski bu yàlla baaxee ki mu góorgóorlu am xaram daal di koy yeew ne xar mii moom lay tabaskee na ko sàmm xam ne léegi alalu yàlla la jën jënd na xar mi nee na léegi li jox naa ko yàlla mel na ni moomatu ko sañutu ci sañutu caa def dara ndax xar la moom muy tabaskee bu ko ci yàlla nattoo nag ndogal dal ko ca xar ma am lu ci sikk du tere mu continuer tabaskee ko ba léegi ndax sikk bi bi mu ci dal fekk na mu jënd ko ba pare sikk bu ko dal avant nga koy jënd ak sikk bu ko dal ginnaaw bi nga ko jëndee bokkuñu day am différence foofu ndax ginnaaw bi nga ko jëndee ba def ko tabaski ci la yàlla def benn sikk dal ci boo xam ne yow du sa gàttañlu ci la amee bu dee sa gàttañlu la koy fay ndax alalu yàlla la waaye bu dee doo ca dara da doon mbëkkanteeg benn xar far xar ma damm ba jën ba wala far tànk ba damm bu boobaa loolu bu fekkee jàppandiwul ci yow nga changé ut beneen da nga koy continuer nga tabaskeeku loolu lañ tuddee ma baada taayin al aybu taariu baada taayin bu ko defee nit ki eh, xaar ba bis bi nga xamante ne bi ci la jullit ñi di mu génn dem julli ji ndax loolu la ñuy njëkk a def dem julli ji fa jullit ñi di jullee yonente bi alayhi salaam daan na ci génn jullit ñëpp ba ci soxna yi nekk ci kër yi daan na leen wax ñu génn jullit bi sol yéreem yi gën a rafet ci yéreem sangu ba set laal gët daal di dem ànd ak jullit ñi teew teewee li nga xam ne moom mooy xéewal googu noonu bu ñu jullee ba noppi bu mënee déglu xutba bi mu déglu ko ginnaaw bi mu changé yoon jël beneen yoon loolu da gis nit ñi da ko def waaye lu sax ci sunna la yonente bi alayhi salaam daan na ko def daan na def buy dem yoon muy jël ak buy dëpp yoon bu muy jaar du nekk benn jullit bi def loolu taamu nañ tamit bu nit ki xëyee mu bañ a lekk dara mel na ku wóor bu mu ndékki xëy na yenn borom sant yi dina jafe ci ñoom bu ñu xëyee ak xiif bi ñu bañ a ñu bañ a lekk ba dem julli ji ba ñëw mais bu ko nit ki mënee def moo gën bu ñëwee bu reyee gàtt bi ba noppi mu soog lekk ci gàtt bi loolu la yonent bi alayhi salaam daan def nekkul lu war waaye sunna bu rafet la bu ko nit ki defee lu baax la bu ñëwee mu rendi li nga xam ne mooy gàttam bu koy rendi mu tëral ko jubale ko la bu mu fàttee tudd yàlla bu mu fàttee daas paaka bi ngir mu noppal li nga xam ne moom lay rey pour xar bi bañ a ndax dañoo digal nit ki buy rey tamit li muy rey mu rafetal ni mu koy defee pour xar bi bañ a souffrir bu ko defee mu rey ko tudd turu yàlla bismillahi allahu akbar hada minka wa ilayk allahuma hada anni wa an ahli bayti su ko mënee wax ci arab baax na su ko mënta wax mu ko ci ci làkk bu mu ko mën a wax bi moom na ko wax ci làmmiñam yàlla yow li yaa ma ko jox te ci yow la jëmaat yow laa koy delloo maa ngi koy def nag ngir man ak sama njaboot ndax kenn ku nekk dangay rey reyaaleel sa njaboot ñaari nit duñ bokk benn gàtt waaye kenn ku nekk kilifa bu nekk ci këram day rey bu reyee reyalee nañ yóbbaale walla njabootam bu fekkente ni rey na gàtt boobu bu ko defaree na xam ne yàpp bi nga xamante ne bi moom la ciy jële mën na caa lekk mën na caa maye mën na caa saraxe mën na cee denc waaye bu mu ci jaay bu mu ci def échange ci lenn lu mu mën a doon ba ci sax bu ko nit jàppalee woon ci fees bi feesal ko bu mu jël yàpp di ko ko fayee bu ko mayee baax na mais bu mu nekk fay bu koy fay na ko fayee leneen ndax yàpp bi kenn du yàpp tabaski bi nga xam ne da nga koo rey jaamoo ko yàlla kenn du ko jël di ko jaay kenn du dara ci xar mi loolu yépp ngir màggal rek li la yàlla sant ndax yàlla nee na moom soxlawul dara ci deret ji soxlawul dara ci yàpp boobu noonu li mu li mu soxla ci yéen mooy ragal yàlla ji nga xam ni moo tax li ngeen di def ngeen def ko ndax li ngeen di def li leen ko tax a def ragal yàlla la war a doon warta doon puukarewu warta doon ne aada boo xam ne ñëpp ngi koy def foog ma def ko naa ak ñoom am looloo ngi ci waaye li ko lal dëgg-dëgg ragal yàlla la ndax yàlla moo la ko sant ka koy def di ko jaamoo suñu borom subhanahu wa taala muy fan boo xamante ne bi fanu mbégte la fanu nemmeeku say mbokk ak say dëkkandoo la ak def li nga xamante ni mooy mbégte dugal ko ci sa njaboot waaye lépp nekk ci loo xamante ni lu dagan la nekk ci loo xamante bi lu neex yàlla la mais bañ koo def ci loo xamante lu naqari suñu borom la comme li jullit ñi xewal léegi notion bi ñu am ci feet mooy yaakaar nañ ni feet affaire caaxaan la affaire mooy yàlla la te loolu yëpp ñu ko toppandoowee ci ñeneen ñi nga xam duñu ay jullit mooy occidentalisation bi nga xam ne ci lañ soobu feet bi nit ñi jàpp yaakaar nañu bu ñu nee bi alayhi salatu wasallam daawul màggal bis bi ci loolu da ko di kàbbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walilahi alhamd allahu akbar kabira walhamdulilahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila daan wax loolu di màggal yàlla bu jant bi musaana so rek ñu ne suba la tabaski da koy tàmbali di ko def ba ñu xëy mu continuer di ko def ba ci ñetti fan yi topp ci fani tabaski da ko daan def muy ayaamu tashriq ñetti fan yooyu fan fani rey la bu nit ki jàppandiwul woon ci moom mu mën a rey ci bis bu njëkk bi mën naa ci ñetti fan yooyu lu mel ne koo xam ne xaram dafa rëcc mu war ko ba sonn gisu ko wala yoroon waroon jot ci benn xaalis mënu caa jot ba ci suba ga mu soog cee jot dem jënd xar mën na koo rey ci fan ñetti fan yooyu noonu ci genre condition yi mel noonu kon tabaskee ngi noonu di ñëw ñu ñaan yàlla mu àggaleñ ci ak jàmm liñ ciy def itam lépp yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko te yàlla delloo siwaat ko ay ati ati at mu fekk ñu ñu ñëpp ci jàmm fekk ñu ci njub fekk ñu ci diine fekk diine lislaam ak jullit ñu nekk ci anam boo xamante ne anam bu neex seen borom la ndax ku nekk xam na ne suñu communauté bi ñu nekk di islam wax dëgg yàlla suñu anam ak suñu nekkin doy na waar doy na waar suñu xoolaatee suñu relation ak suñu rapport ak suñu diine ak li yàlla bëgg ñu mel ko dooy na waar suñuy société ci li ñuy dund ak li ñu ciy gis ci changement yi ci am ak doxalin bi raglu na loolu lool lool ci li ñuy ragal mu ñëw ji ci avenir bi rawatina ci jeunesse bi doon nañ ko wax ci ne ñi ngi jublu ci ay vacances da ngay gis euh, vacances yi daanaka doo comprendre sax xale yi ci li ñuy nekk pourtant occasion la woon pour ñu mën leen a tàggat ci lu bari ba ci sax ci wa seen wàllu àdduna defal leen ay camps yoo xam ne dañ leen ci former di leen ci tàggat ci mbir yu bëri ci ay métiers ci mbir yu bëri yu mën a jariñ jeunes ba ci wàllu xam-xam wàllu def ay recherche wàllu defal leen ay génie en herbe defal leen ay concours ku mokkal li ñu jox ko lii ku def li ñu neexal ko lii ku réussir li ñu defal ko li bu ko defee loolu am lu mu def ci xale yi ci wàllu jom wàllu esprit compétition ci loo xam dina leen amal njariñ amal njariñ seen réew mais bàyyi xale yi ñu nekk ci caaxaan bi pëccëxoo bi ci loo xam ni te fu ñu toll ñu ngi jàmbat ne dañoo bëgg a génn si suñu misère bi ñu nekk mais doo gis dara fu ñu toll ñu ngi jàmbat ne pauvreté bi ñu nekk neexuñu beneen bi ci des tamit mooy yëg gi ñu yëg suñu bopp ñun Sénégal ci wàllu diine ba jàpp ne ñun moom daanaka ay malaaka lañ suñu réew mi nga bari ngay xool di seetaan yàqute bi fi nekk mu mel ne lu dafa dem ba nekk lu normal loo xam ne kenn du ci wax dérangetul kenn wallahi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon ñu ñaan yàlla xeetu lislaam tabaski dellu siwaat ay at waaye fekk ñu ñu nekk ci anam boo xam ne bu gën a rafet ni ñu nekkee la ndax ni ñu nekkee ni neexul ci xol yàlla na ko yàlla na ko yàlla def yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasana wa qina adaba annar rabbana la tuzig qulubana bada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahab allahuma waffiqna li hudak waj'al amalana fi ridak اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال allahuma inna naudu bika min jahdi albala wa min daraki alchaqa wa min suu alqada allahuma waffiqna li ilmin naafic wal amali alsaalix allahuma axfir lana wa tub alayna innaka anta altawaabu alrahim allahuma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain qumu ila salatikum yarhamukum membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sippooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawee liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu senegaal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam